daanaka daal ba euh, tëggan dëgg semi lañ koy jàppoo mm-hmm. neex benn naqari benn ñoom nee amuñu plan A donte la sax parrainage bi daanaka ay fan yooyu bo ci des waaye dañu gis ne daal Ousmane Sonko mooy seen candidat dara du ko dindi noonu la ko yéene kaay giir Walf Quotidien xëy fësal leneen tamit loo xam ne yéene kaay giir Walf Quotidien xëy na ko fësal Abdoulaye mm-hmm. te mooy tournée politique bi nga xam ne Bougane Gueye Dany moo ngi koy amal jamono fa la ñu ko bloqué lank ne kon du dugg ca dëkk ba si jamono jujule Amadou Ba mi candidat coalition Benno Bokk Yaakaar moom ma nga doon gundaandaat fële a fàttaliku eh, nga xam ne di njabootu ñu loru yooyu la ñu ngi sàkk ci dellu si waat ci tournée pré campagne bi nga xam ma nga woon démb fële ca diwaanu Tiwaawoon jaar Meewaan jaar Pire laata mu àgg fële ci Tiwaawoon Euh, tapis rouge nag dañ ko falal ci jamono mhm. yi ku ci mel ni Mali Gakou Bougane Guèye Dany ñoom ñoo ngi leen euh, ci gox yu ci mel ni ñoom amuñu plan A amuñu plan B mhm. Ousmane Sonko mooy seen candidat jëm ci élection présidentielle yi di ñëw noonu la ko yéen gii di mandat xëy fësale yor-yor bi lam ñoo dikkee yor-yor xëy dalal kii di Cheikh Tidiane Dièye ci laaj ak tontu gi dox ci diggante mag suñu naataango yi. moom Ousmane moom euh, Cheikh Tidiane Dièye nee na Ousmane Sonko moom kese moom kott moo mën a jàkkaarloog système bi fi ne moom Cheikh Tidiane Dièye na sampoon na dëndam fas yéene bokk ci élection présidentielle yi di ñëw waaye loolu teg na ko suuf euh, moom daal benn candidat la am mooy Ousmane Sonko tey Ousmane Sonko ëllëg ndax gis na ci moom ab taxawaay yoo xam ne nii euh, wóor na ko noonu la ko yéen a di weer yor xëy fisale yéen a di Sud Quotidien xëyee parlementaire bu yeewi askan wi wàllu ba ci benn bokk yaakaar euh, rawatina nag yeewi ak seen diggante ak euh, euh, réew kii mhm. waa taxaw Sénégal ñu la ko yéen a kaay gi Sud Quotidien xëy fisal yéen a kaay kaay gi la tribune xëy dellu soit ci élection présidentielle février 2024 yéen a kaay gi ne opposition bu fekkente ne bëgg nañoo daan nguur gi jël bu amul benn werante la ñu war a def rek mooy ñu fexe ba jéem a booloo boota ci ñaar wala ñetti candidat Euh, bu ñu ko deful rek daañu may gaañ yi ab porondol noonu la ko yërekaay gi xëy fësale inondation yi donte la sax gouvernement ba Sénégal nee na euh, dugal na ci lu ëpp juróom-ñaar téeméer a bi di réew mi quotidien yërekaay gannaaw bu mu jëlee dogal wax ne dafay deltu ginnaaw ci candidature dem bootu ci ginnaaw ki nga xam di Abdoulaye Daouda Diallo nañ jàpp nag ay yëngu-yëngu kon ñu koy tàmbalee ko ci ñi nga xam ne ñoom ñoo di frondo Abdoulaye daaw di jëlee fële am na si nag ñoo xam ñu ngi si tàmbale fësal seen ñëgg ñu ko xol mi ngi ci yéen kaay gi réew mi yéen kaay yi kenn geneen critique yéen kaay gi di ne du yàgg dara sax ñëpp ñoo xam ne demoon nañu daañ dellusiwaat ndax moom Amadou Ba mi daanaka ab euh, pak takkandeeru mhm. président Macky Sall la euh, ñoom ñaar daal six ak neuf la ñu boo ci ëlbati mu jox la beneen ba ca des 24 euh, heures Seydina fu mu xuus Abdoulaye yéeni kaay gii di 24 heures dafa xëyee dala si waat ci crise politique bi nga xam moom la jamono ji ak mi émigration clandrière irrégulière bi mhm. yéeni kaay gii ne neexul ba neexul mbir la moo xam doyen waar tax yéeni kaay gii di 24 heures xëy tey jii daal di ci amal ab taxaw seetlu wu yaatu yaatu. Euh, suuf saa fu mu ñu demee. Abdoulaye yéen kay gis dafa xëyee de sol ay dàllam dem fële ci dépôt Derklé mm-hmm. wax ci bonbonne de gaz bi nga xam ne dafa éclaté ni ki fan yu génn. nee nañ ñeent ñoo waxoon ñoo si jot a ñàkk seen bakkan waaye am na yeneen ñaar yoo xam ni jot nañoo kon finalement mujjee si combe ci seen blessure euh, bokk na ci boroom kër ga ak benn ak ki nga xam moo fa nekkoon doon daan dooleem. Euh, yéen kaay gi nag ne enquête bi dafa fësal ne euh, accident bi daal dara war la ko lu may soxna si nga xam ne ni euh, Sagar Diouf lay wuyoo moo jëloon téléphone am kon tiim gaz ga di taal finalement dafa am interférence gi dox ci diggante téléphone bi gaz bi loolu moo waral lakk gi noonu la ko yéen kaay gii di source à xëy fësale yéen kaay bu ñu deful daanaka dina jeexal Sénégalais yi buñ sukkandikoo ci rapport nga xam waa OMS def ko nee nañ wopp ji jamono ji plus bi yàlla sax dafay gën di seex dafay gën di dafay gën di seex ay jéego Euh, yéen kaay kon ci loolu la xëyee dellu si waat Abdoulaye. yéen kaay di Le Soleil. Le Soleil yéen kaay xëyee dellu si waat ci gaz bi exploitation gi ci am yéen kaay gi ne GTA di société bi nga xam moo ci yëngatu euh, nee na liggéey fokkar na ci téeméer la juróom-ñett fukk ak juróom-ñett daanaka pare na noonu la ko yéen kaay gii di Le Soleil xëy. yéen kaay bi di stade lam ñëw Iliman Ndiaye war naa wone boppam ci match bi nga xam war naa dox ci diggante euh, OM ak Ajax Amsterdam mu Euh, Iliman Ndiaye nag euh, xam nga tey jii waa OM ñu ngi ci ay crise ndax daañu fas yéene déplacé wu tuuti ànd ak seen entraîneur gars yi nag ne Iliman Ndiaye mi nag ci la gars yi wékk seen yaakaar ngir mën a résoudre crise boobu lee noonu la ko yéene kaay gii di stade xëy fi sulu yéene kaay di suñu lamb Ama Baldé fas yéene feete fukki at juróom yi nga xam jot na ko def ci lamb ji mhm. Ama nee na mu ngi dugg ci lamb ci atum 2008 jot na ci def jàllalu gu ne